ñu ne ñu dem ñu ne bo amé aaja bu jump, siru day siru day gàtt du jël temps bo amé aaja bu jump, jaaxle nga defal ñaari raka, defal ñaari raka ñaari raka gannaaw faatiya nga def xasbi allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim nga def ko juroom ñaari yoon wala 11 fois lerna bo noppé nga def istighfar juróom ñaar yoon nga jangay ñaan gi ya azim antal azim qad ahamanni amrun azim wa kullu hammin ahamanni yahunu bi ismika ya azim asaluka ya azim an takhdi hajati allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatih lima khuliqa wa ala ali sayidina muhammad juróom ñaar yoon ni nga koy jappé rek aajo bu Dumu mu gaaw gaaw sunu borom da koy doxal gaaw gaaw sunu borom da koy doxal khasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim gannaaw faatiya nga def ko ci ñaari rakkay bo selmale sëlmalee ñaar yon wala 11 bo noppee def istighfar juróom ñaar yon jang ñaan gi juróom ñaar yon salatul salatu gi ñaar yon Allahumma salli ala sayidina muhammadin al al-Fatihi lima uxliqa wa ala ali sayidina muhammad jehna bu ko jappé ni inshallah sunu borom dana defal tawfiq ci lepp lu ngay ñaan ci barki yonent bi sallallahu alaihi wa waaw hasbi allah mi lu yéme la hasbi allah mi lu yéme la ma dindi fi ha ah. ba dañu ne jigen bu ñew ci yow ne la jëk dafa bëgg day ñaanal jëkëram yow sëriñ bi nga ñaanal jëkkëram pour mu am liggéey lii nga koy bindal mais soo agsee fii da dindi zaw ji def turu jëkkëram fii ak fii boo paree nga jox ko kayit gi mu dem teg ko géej géej la koy sànni ci ndox mi la koy teg wa déedéet am liggéey am liggéey ki ñëw ne dama bëgg nga ñaanal sama jëkkër mu am liggéey bu ñëwee bindal ko lii mais zaw ji fii dangay dindi zaw ji def turu jëkkëram fii nga def turu jëkkëram jox ko kayit gi mu dem teg ko géej leer na waaw leer na xasbi àllahu laa waaye sooy def fa in tawalaw faqul xasbi allaahu laa ilaaha illaa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil aziim sa client bu la wanoon ginnaaw jigéen bu la wanoon ginnaaw lu la wanoon ginnaaw day dëpp delsi 2698 allah ñaata yoon la ñëw ci alxuraan ñii ñi ngi naan 6666 ak yu kenn xamul ak yu kenn xamul ñi wax mais fa in tawalaw fa qul xasbi allahu la ilaha illa hu alay tawakkaltu wa huwa rabb arshil azim fa in tawalaw fa qul xasbi allahu la ilaha illa hu alay tawakkaltu wa huwa rabb arshil azim jigéen bu la wanoon ginnaaw kilifa gëla wanoon ginnaaw ku la wanoon ginnaaw dina dëpp dellusiwaat lu ginnaaw day dellusiwaat waaw waaw kilifa la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbu arsil azim nga réyal miimu azim nga bind bi ci bir 11 fois nga teg ko ne nga bindat benen 11 fois mim benen mim bi tamit nga duggal bi ci bir def nga fi 11 reyal mim bi duggal ñaan bi ci bir bindat yenen 11 reyal mim bi duggal ñaan bi ci bir nga def ko safara nga def ko saafara di koy sangoo nga def ko saafara di kay sangoo bu ci dem ay xasam xay bu ci def dara dee ci naan nga si sangu léegi yow lii ngay jàpp di ko di ko naafila saw jàngee euh, xasbi yàlla la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul azim onze ci ñaari rakka boo paree nga ñaan sa ñaan dem sa yoon ku lay teree sëy kuy te kuy bëgg jéem a téye sa teraanga ku lay tere nga nga am bonheur ci àdduna wallahi li asim bu bàyyiwul day faatu barki sëñ Bamba man maa la ko wax ñaan bii dugal ko si azim bii ñaan bi nga dugal ko ci azim bi onze bii onze ku lay teree sëy ku lay teree avancé ci place kuy jéem a téye sa wërsëg wallahi asim malaaka mawti wàcc si kawam yàlla dina wéet ak moom bëccëg mu fàtt mu defe ne moom yomal xiyaam moo jot dañ ko appel yow del naafila sa le bi rek so pare nga ñaan khasbi allah la ilaha illa huwa la tawakkaltu onze ñaari rakaa bo pare nga ñaan sa ñaan bi ngay sango sa safara bi nga si naan wallahi al asim bi ni da ngay bind khasbi allah la ilaha illa huwa la tawakkaltu wa huwa rabbu arsil azim mi mu azim bi nga reel ko nga duggal si ñaan bi ben 11 fois nga koy répéter nak bi 11 bi 11 waaw mim bu mim bii da ngay dugal ñaan bi mim bii nga dugal ñaan bi waaw benn bi bii la benn bi bii waaw xarit suñ borom ngay nekk xarit suñ borom moom ngay nekk waaw ñaan bii ngay dugal si mim bi bo agsee bind ba asim nga duggal ñaan bi ci bir nga commencé wat bo agsee ci mim nga duggal bi nga benen bi ba nga am 11 nga def safara del sangu ngay naan kuy téy sa wërseuk kuy téy sa teranga ku lay am ku ne mom yow do tekki wallahi asim yalla dina wét ak mom bamu mu bamu défé na al yawma naxtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum billahi maa la ko waatal kuy téy sa wërseuk gisuma ko si kaw suuf yaayam liggéeyul yalna ci yalla def barke asalaamualeykum han <laughs> job dafa am luma kaw fi de mais waa teel hmm? ñaan bi de ko def sag gudi nga def khasbi allah ñaari raka 11 11 wala téeméer am nga jot defal wala nga def 111 ba pare nga jàng ñaan bi yàlla ubbi sa wërsëg yi yàlla defal la tawféex wàcc la coono yi génne la si xat-xat yi julli ñaan mooy ñaan mooy armam ñun suñ suñu suñu suñu suñu jaasi ñaan la wala yàlla def barke tidur Sakal yang lekan. Thank

Jangan আবু সম্পদ পাওয়া থাকে আপনি কিভাবে দেখেছি asal bagaimana kalau kalau belajar aku harus di lokal mana kau kata kau sama menjadi itu nakal aku ya mata kau pak eh jongkon jongkon jongkon lalu mau karena